la wan nit ña ne bokkuñu woon fu ñu jóge gannaaw buñ faatoo lañ ko xam te noo faatoo ndoo yàllaa xam ka jëkk a faatu waaye ñoom lañ génnee nu daal ne faatu nañ waaye la ci ab jullit di jànge mooy ba ñu leen waree yóbbi sutural leen denc leen kii dañ koo yóbbu mu jëm Casamance kii jëm Podor kii ñu indi ko Touba maanaam xibla bu nekk jóge nañ ci benn xibla ci soow bi kii jëm fi féeteeg Mauritanie kii jëm fa féeteeg kii jëm fa penku ci senegal loolu nag yàlla waxoon nañu ko bu yàgg bokk yi bokk na ci xéewal gi suñu borom andi jagleel ko jullit yi mooy ab jullit saa su nekk bu tegee tànkam fu ko dara di jame rek daa xoolatoon ba mu koy teg ba xam teg loolu nañ ko fa waaw walla déet ci loolu déggaat nañu it ñu bari ñuy wax ba yàgg ñu ne maa ngi jéggaluwaat wax ba ñëpp dégg ñu delluwaat ca gannaaw mënoon na jëfandikoo ma bii nga xam ne daa amoon ci am pénc ku ñëw ci pénc mi ne capp bëgg a suuf mag nga ne ko tey ngaa dem ba nee ndax am na lu ñu suturaal ci moom tam mën na ko bañ a xam waaye ginnaaw jigéen a feneen ñëw ba ci seen pegg day mel ni seen dëkkandoo la mu ne yéen a moom fii ñu ne ko déedéet yàllaa ko moom de waaye boo demoon ba nee lay gën a am naftu dal ko ndax ba mu ne cap bay def la muy def daa am riir muñ dégg mu bàyyi ko ci moom ba mu noppee mu xool leen ñu xool ko mu ne ana fu ngeen waxoon ñu ne ko loolu jaratu ko di ndax def nga li ngay def ba noppi kon bokk wax ba noppi naan maa ngi jégalu it dañ koy dugal ci lan la suñu borom santoon julli di ci diggante nit ak ñam dëkkal bu ñu demee ci alxuraan danañ ko fekk yàlla di wax ne euh, yàlla moom lu mu dendaleeg jëmmam ji lu rëy la. Euh, dara denut ak moom waaye buy lim tudd bopp jëmmam ji teg teg leneen rek loola lu rëy rëy la lu ëpp jullit di war a bàyyi xel ndax bu ñu demee sóotu nisaa yi dañ ca fekk man waabudullaha wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dil qurba wal yataama wal masakin wal jaari dil qurba wal jaari al junubi wa saaxib bil janbi wa bni sabil wa malakat aymanukum lim boobu dafa tàmbalee si day leen jaamu yàlla ndigal li ngeen am mooy jaamu yàlla moom daal bañ koo bokkaaleeg dara ñu ne incha fas nañ ko yéen mu ne su ngeen ci jógee ngeen jox wayjur àq ji ngeen ko ameel nu mu gën a rafete seen diggante ak moom def leen seen kem kàttan ñu ne fas nañ ko yéene mu ne ak ñi leen jege ci bokk ak koo xam ne da ngeen a moom rek dox daje ngeen def te mënulul boppam dara te yaakaar la tax ak koo xam ne yéen bokk koñ koo xam ne yéen a bokk ab dëkk wala ngeen ànd di tukki rek bokk oto wala bokk fi saxaar am bokk saxaar wala ñi dem ci fafal naaw yi bokk avion ba ba ngeen di wàcc ay dëkkandoo ngeen la ca dolli ko mooy koo xam ne yaa ko kilifteefam ci sa loxo la nekk ak noo ko mën a yilife nga jàppe ko ne la ngay séq moom yàlla nga koy gis te dala koy àtte ëllëg kon liñ ciy dégg rek ci aaya bi mooy am solo bu dëkkandoo am solo tudd na dëkkandoo tuddal ko tuddal ko ba yi nga xam ne nit koy séq waaye dëkkandoo rek buñ ko gën a tënk yaar rek la dëkkandoo bi ruux wa bi dam dëkkandoo ruux mooy fu ab jullit fu nit nekk ci kaw suuf boo ko xamee ak boo ko xamul yéen a bokk suuf si boo xamee ne ay nit la nag yéen a bokk doon ay nit waaye ruux gi nag mooy diine ji mbokkum diine nga xam ne tey jaamu yàlla gi nga fekk mu di ko def boo fekkee mu taxawal julli booy julli su fekkee yéen a bokk waxtu ngeen di jooxe man nga caa bañ a juum ndax ni nga ko ni nga koy defee noonu nga ko xamee bu dee weeru koor it ku la jox nga ne damaa woor nañ koy joxe mu ne moom it damaa woor te yëgowu leen xamante wu leen kon ay bokk ngeen yu jegee ci wàllu ruux ay dëkkandoo ngeen waaye mbokku bi dam mooy mbokku deret du geño rek ñi bokk aw sant waaye du meen kese ñi bokk ci wàlluk ndey waaye dam mën naa dem ba bokk ñi nga bokkal réew mi ñëpp ak ñi sës waa réew mi réew yi sës ak ba ci Afrique gépp ba ña gën a jeg ña gën a sës feneen ci Afrique mu ngi sësal ay bokk lañ ay dëkkaloo lañ waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daf koo fonk ba euh, mas naa wax ne jibril daana ñëw naa ko dëkkandoo dëkkandoo ba mu defee ne dëkkandoo bu faatoo moom war nga ko doon walla yow boo faatoo boo ko jëkkee faatoo war na laa doon booba séddaleeguñ ñu war a am ci miraas ñu mu doon nee na jibi daane ko ñu war naa ko dëkkandoo dëkkandoo ba mu defee ne moom su fi bàyyi ko bàyyi fi dëkkandoo yi war nañ ko mën a doon loolu nag li ñuy tegtale mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf caa joxañ rek ci ne dëkkandoo lu mag ndax doonante du ñëpp ñoo koy séq da nga bokk ak nit meen sax te du ngeen doonante wala ngeen bokk geño te balaa bala nga ko mën a doon da ngay jaare ji fu sori doon ko mën a doon waaye lëkkandoo moom yonent bi nee na woon jibril daana ko ko dénk ba mu defee ne bu fekkee moo jëkk faatu dëkkandoo dëkkandoo war na ko mën a doon wala moom jëkkandoo jëkk ko faatu mu war ko doon kon boog dëkkandoo am na ñetti xàq yu ndox suñu diggante ak ñoom yoo xam ne kenn ku nekk war nga koo bàyyi xel ba dooy wax ci moom wala nga koy joxaño loo xam ne ëllëg si bi doo mujj lu maa ngi jéggalu rek wala ana ngeen waxoon ba ci jiitu mooy loo man ci lu rafet yow nga fab ko mu jëm ci ñoom nga di leen ko defal sëriñ bii fi nekk yàlla na fi gën a yàgg ak Cheikh Mahamadul Muntaqa waaye na ci ay misaal am na ay dëkkandoo bi ruux wa bi dam bokk diine bokk réew mi mën a dem ba daje ci daje waay yu jege ñu ne dañoo bëgg a def nangam muy sàmmoonteeg wax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam al ihsaanu ilayhim mu jël la man ndax dañ dañ doon laaj ku mën nangam def ci mu jël la man wuutu ñu bari ne maa leen ko defaaleel al ihsaanu ilayhim waaye kaful adaa anhum loo gis mu jëm si ci sa dëkkandoo soo mënee fexe ba mu bañ a àgg ci moom nga fexe ba mu bañ a àgg ci moom sa kem kàttan bokk na ca rek gis ci mbedd mi loo xam ne gis nga ko te kenn gisagu ko woon ku dul yow wala ñu leen ko romb seetlu wuñ ko te man naa jëm dëkkandoo nga jël ko teg na la ca pegg ba wala nga sàkkal ko pexe ginnaaw yow romb nga ko daal bu mu jam keneen ci dëkkandoo yi waaye waxtimaalul ada minhum suñ ñëwee ne sa dëkkandoo moo la wax nangam wala moo la def nangamet nga ne déedéet damaa yaakaar ne danga xamul dam ci jublu wala nam ko wax am na mag mu baax mu nekkoon Tuubaa tudd Sëriñ Baay Sëriñ Njaay Gédé nit dana ñëw ci moom di wax ci kenn da koy déglu ba mu àggal mu ne ko damaa yaakaar da nga xamut danga nga jaxasoo wut ak moom rek wax ba jaxasoo moom da mën leer na ma lii du jikkoom wala ba ngay jëflanteeg moom lii daa fekk mu am fu mu toll rek waaye lii de man lii moom du jikkoom moom te it bala nga koo xam na nga jaxasoo ko na nga jéem a jaxasoo ko wax ci malul adamin moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku gëm yàlla ci sartam yam àndal yépp gën ne bis penc nga ñëw te yàlla day àtte lu mën ci rafetal diggam ak ci dëkkandoom na ko def dellu it ne ku gëm yàlla gëm ne ëllëg yàlla dana àtte nay teral dëkkandoom dellu waxaat lu mel ni ngiñ la wallazi nafsi bi yadihi kenn du am gëm yàlla bu rafet googu ma jëkkee ne ku gëm yàlla du rafet mukk li feeg nit ki yéene wu dëkkandoom la mu yéene boppam kon kuy yéene ay dëkkandoom lu mu yéenewul boppam ngëm yàllaam des su dee yëkkati ay kàddu di ko jëmee ci ñoom yuy waral maa ngi jéggalu ëllëg it ngëm yàllaam des na njàngalam sallallahu alayhi sallam walladi nafsi bi yadihi laa yuminu abdun xata waaye mas naa wax eh, aba zar abu zar al gafaari nee na yonent bi sallallahu sallam da boo soppeetee sa cin sax lu mel ni taalaale ba bu yombutoon ba ci réew mi rek bu yàggutoo am na dëkk yoo xam ne su mag ñi masaantoog ci pénc mi ba mu yàgg ñu xel mati taalaale mooy rosi dañuy tàmbalee jëri suuf ba xam fu ngelaw lu jóge bay indi xet googu su ko defee bu dara xeeñul ñu tàmbalee wër ci kër yooyu féete noonu yi di nuyoo te bu ñuy nuyoo dañuy jubali waañ wax ca kay togg nuyu ko laaj ko waa kër gi yëraale ba xam foofu la waaw wala déet moo tax am na ci ñoo xam ne dañoo siisoon lool bala bu ñuy bu ñuy rosi dañu koy wàcce teg cin li ci suuf gaaw teg ca la ñuy def balaa colool bala naan casasas ñu teg ci kubéer gi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa kooku da koo dégg gutoom nee na ko saa boo sa peesee sa cin abo abo zeril xafari la ko waxoon soo boo soppeetee sa cin bul yëg dëkkandoo yi di ko xam bay jëri suuf bay tàmbalee nuyoo di xaaraan waaye dolli dollil ñeex ma ba mu bari euh, ndawal gaa ndawal mën naa doon lu nekk ndawal ak yàpp nag du benn dawalu ak yàpp du benn waaye na nga bari ndox ma ñeex ma ba ku ci nekk nga mën a tudd nga mën a tibb ku dugluus ne am joxal gone yi lu ca mën a ànd ànd ca euh, su ko defee su soo koy def di ko def keneen di ko def keneen di ko def dana mujj ñëpp yéeneente jàmm ndax lu mu am bokk ko man ida tabaxta maraqatan fa aktir ma ah wa tuahid ja jiiraanak waaye ñi dëkk ak yow ngay yokk ñeex ma ba mën leen a tibbal mën naa bari Euh, soxna Aïcha ne ko waaw bu fekkee nag damaa bari ay dëkkandoo di ko tàmbalee ñaar jëm kaw mu ne ko wàññil sa buntu kër ci ay jéego buntu kër ba la gën a jege tàmbalee ja kon boog bokk yi ba ñoo seet bir ruux wa bid dam ñiñ bokkal pas-pas ñu nekk fi sori nañ xool ñu gën a jege te ñu bokk ak ñoom pas-pas suñ ca xoolee ña bokk ñun pas-pas. nañ ca xool ñi gën a ñi dëkk ñun ca réew mel mi su boobaa bu ko ku ko nekk tàmmee ci kër gëm dëkk waa dëkk ba tàmm ko ci dëkk bañ daan dal muy law di dem di dem dana mujj kenn duutu wax ci sa dëkkandoo dara loo loo xam ne ëllëg si bi da nga naan maa ngi jéggul moo tax yàlla noonu yàlla dimbali bañ gën a mën a rafetal suñuy diggante ak suñuy dëkkandoo te di leen def jox ki suñ kàttan suñ man-man suñ kem kàttan li alxuraan wax ne li yunfiq du saatin min saati euh, saa boo déggee kuy jàmbat nga xelmati ko rek gaawal balaa kow kenn yëg loo ca mën nga def ko waaye soo mënut dara ci wàllu jox-joxit nga fexe ba bu ñëwee nett la nett li la loo xam ne ci ñoom la jëmit nga ne déedéet du moom su fekkee mënoo ci yaar yooyu benn nga fexe fexe ba yow bu dara jóge jëm ci yow jëm ca ñoom boo fexe ba mosoo yëkkati jëwub kenn si dëkkandoo yi junj naa ne dëkkandoo yi gën naa yaatu ñu ngi bokkal koñ bi kese kese waaye ñu nga bokkal réew mi te ay te bokk pas-pas bi ay dëkkandoo lañ ñoo ci raw waaye ñi bokkul pas-pas it te bokk seen suuf si. ñoo bokk di ay dëkkandoo yàlla na nu ko yàlla déggloo ñu fexe ba lu ñu mën ci rafetal jëm ci ñoom ñu def ko waaye fexe ba luñ nañu ci yéen lañ ko jëmeel lii ñu rafet njortu ca ne da caa juum rek waaye jubluwu ko ca waaye fexe ba dara ba ñu jóge ci ñun ci ab safaan jëm ci ñoom eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla yàlla yet juróom-benn ngi nii bëggul yett yi yett yi la gën a bëgg yett yi la gën a bañ waaye bokk na ca yam gën a bëgg ca ñett ya koo xam ne day muñ lor ju ko dëkkandoom di teg nga xam ne wóor na ko ne moom la dem na ba am ci lu ko leer waaye mu di ko muñ muñ gu rafet ndax nee na su ko muñee muñ gu rafet léegi tey moom mu faatu yàlla fay ko muñam ga wala kooku faatu mu am jàmm ndax ñoom ñaar ñëpp duñ fi dëkk ba faaw moo tax su ma ci dellusiwaatee ci ne ñetti ndaw yooyu faatu ak ñu mel ni ñoom cib liggéey bokkoon fu ñu doon liggéey yàlla na yàlla yërëm te def xolub muñ ci njaboot gi réew mépp leen nag waaye lañ ciy jànge rek mooy daa am lu leen boole woon ñu rafetal ko muy dëkkandoo ci benn barab bu ñuy liggéeyee yàlla moo mandoo leen moo xam kam jëkk a jël ak kam ca teg waaye li nit ñi gis moom dañ leen a fekk ñoom ñu defandoo ko ñaa àndoon ak ñoom yal leen yàlla saafara waaye nag bokk yi bañ demee ba dëgg rek taxaw ba jébbal suñu borom des ca gis ngeen kii dañ ko yóbbu Ziguinchor kii Podor kii Touba loolu nag tàggaliwu leen bu fi mu nekk na ñoo bokk seen suufu Sénégal yal leen yàlla attu ci yërmandeem kon ci tënk dëkkandoo lu yàlla fonk la ba mu limee yi mu bëgg ci noonu ku ko def mu fay la ku ko defut ak payee ma nga taxaw wayjur yi ñu fi indi bañ xam yàlla lu mu doon moo ci tege bokki wayjur ya ak ñu ñu ñu ñu dëkkal topp sax ak koo taseel rek diggante bi ngeen tasee ay dëkkandoo ngeen ba ba ngeen di tàggoo koo ak lu ngeen mën a ba ba ngeen di wàcc na rafet waaye nag bokk yi jot liwukaay yomb ku nekk bëgg a siiw ku ne bëgg ñu dégg ko na xam ne bu ko waxee fu waay ad fu adduna bi fu joti rek ñun ñor mën nañoo fexe ba xam li muy wax lu mu doon ñi nga xam ne li wax kenn du leen ko tekkil ñooñu moom mat nañuy bàyyi xel lool ci bu ëllëgee gis bi nga maa ngi jéggalu te fekk lay jàll jàll ma te bokk yi waxukaay yi ñi ko xam nee nañ lu ci waay wax man lu mu néew ne dana ci am juróom-ñaar fukki at door a dañ te bis bañ ko ci dugalee at mi saa bu waxtu wa dee sawaatee mu yaasalaat ko wanaan ko ñëpp kon dañ cay dégg yow ma tubla sarair nit dana si bàyyi ko ba lu yàgg-yàgg ñu teg ay waxam di génne ba mu koy wax nam doon yëkkatee loxo ya ak nam doon gestoo ak nam doon saqate sax du bàyyi dara ñun ñi nga xam ne ñu ngi dundeeli si léeg-léeg ñu gis suñ vidéo boo xam ne wala photo boo xam ne mbubb mu ngi sol fàtte woon nga ko ginnaaw nag yi nit ñi def seeni pexe moo mën a denc noonu sakkantuma yi nga xam ne yàlla moo ko bind na du ko far mukk ci àdduna yàlla noonu yàlla dimbali ba suñuy diggante ak suñu dëkkandoo rafet ba xàq yi ñu war suñu diggante ñoom lu ñu ca mën def ko bu ku nekk defee looy rëccu ëllëg du ci am yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé colos bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement di Khadimou Rassoul